jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fii ci résidence Lat Dior bu Thiès euh, ci seen magazine Rofo tey di talaata euh, di 18 juin 2013 euh, fii ci Thiès mbokk yi asalaamaaleykum di ñaan yàlla mi borom jàmm doolu ñu jàmm yàlla mi borom sutura doolu ñu sutura yàlla mi borom xéewal doolu ñu xéewal ci seen magazine Rofo fas yéene nag ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy programme yi làmb programme yi làmb nag bu ñu koy wax mooy li jot a jàll ak li nga xam ne moom la ñu dégmal Euh, mbokk yi ku ne xam na ne euh, ki nga xam ne mooy sunu xarit ba Mama Ba euh, Mama Ba ñu ngi jëm ci anniversaire am le va bu ñu nee Mama xel day dem ci combat bi nga xam ne Basoka doon na ko bëre ak Lac de Guiers ca yoonu Ndar te yàlla moom leen ca yoon wa di ci fàttali ko waale Alioune Seye di ko waale entraîneur ku mel ni Goro Seck ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal yàlla xare leen na Mama nag la 20 daañu ko defal anniversaire ñaanalaat ko ñaanal way dawlu yëpp. fële ca këram nga ca géejawaay di jaal soxnaam bu baax ah, di ko masawu moom it ak njabootam gépp gi nga xam ne ñoo ne ci làmb ji maam ku ne xam na ne gis nga ko nii ak euh, euh, Lac de Guiers 2 euh, mu doon ko xereñ moo doon koo xam ne forme na xale yu bari ci làmb maam ba le 20 moom la ñu doon tijjee émission bi pour wax ne mondu làmb daañu ko ñaanal di ci fàttaliku waale Alioune Seye ndax ñoo demandoo ci benn bés ak Gora Seck nga xam ne combat boobu nga xam ne Luc Nicolaï moo ko doon tëgg ca ndar moom it di ñaan yàlla delloo ko ci njabootam ci jàmm eh, ndax eh, tombeek tamit liberté provisoire boobu nga xam ne doon nañ ko ñaan pour ñu bàyyi ko te waxuma sax liberté provisoire waaye liberté totale yàlla ko yàlla defal <coughs> ba mën a delluwaat ci njabootam moom Luc Nicolaï mbokk yi eh, ginnaaw loolu di leen wax ne am nañ mbégte tey mbégte bi mooy dañu amaale gan fas yéene ànd ak moom ci seen magazine Rofo Euh, ma koy wax le roi de Bercy le roi de Bercy parce que tey raaya ba nga xam ne moo am ca Bercy euh, moom la yàlla dogal moom la teg ci loxoom euh, muy une première ca Bercy moom champion bu mag bi yàlla dogal xam nga moo tax àdduna booy dox rek yàlla ndekete am na lu lu ne mën na la ko dencal chance su archive Sénégal du ci deñ après l' indépendance ginnaaw bu ñu amee sunu indépendance kan moo njëkk a bëri dóor Euh, bëri dóor kan mooy njëkk a jóge fi Sénégal euh, dem fële nga xam ne mooy France euh, dañ leen naan kooku mooy champion bu ñuy wax bombardier di leen fàttali bëri dóor bi gis nga au Sénégal la commencé woon waaye bëri simple la ñu moom Maurice Jacquin moo njëkk a organisé dóor fii ci ndigalu gouverneur booba Afrique occidentale française moo amoon ñu ne nag addunay dem ba sunu doom ju ñuy wax bombardier ndekete moom moo ko yóbbu France bëree ko bëri dóor foofu kon moom la ñu am tey fii ci résidence Lat Dior euh, Serigne Dia euh, le roi de Bercy euh, couronne boobu nag xam nga moom lañ ko bëgg moom lañ ko bëgg a takkal mu ne roi de Bercy parce que li nga xam ne moom la fa jëlee comme raaya Bercy rek la koy teg Bercy mbala feneen ci ci Europe ba raaya la boo xam ne c'est continental c'est mondial kon je pense que tey moom la ñu am fii tey Bombardier ginnaaw bu ma la bàyyee nga nuyoo. jërëjëf El Hadj Ngagne maa ngi lay nuyu di nuyu Sénégal yëpp. ñi nga xam ni tey euh, ñu ngi seetaan euh, télévision Futurs Médias euh, di la wax ni tey kontaan nañ trop pour daje ak yow tey waxtaan parce que depuis le huit juin ba léegi defaguñu benn sortie mm-hmm. tey yow lañu njëkk a am comme comme sortie kon dañuy sant yàlla mm-hmm. dina gërëm bu baax aussi parce que Bercy boobu nga wax mm-hmm. da nga ci def liggéey bu solo parce que defe naa làmb ji da nga ko jël étape par étape topp ko ba mu jeex tàkk ba combat bi jàll nga toppaat ko ba fii pour ñu résumer li nga xam ne tey loolu lañ jëlee Bercy mais damay sant yàlla bu baax di encourager ki ma doon bëreel muy euh, Balla Gaye 2 comme ni ma ko waxoon rek du ñu ay ennemis ay adversaire lañ pour benn fan bu jeexee ñu nekk ay frère maa ngi koy encourager bu baax di ko wax ne làmb la woon et def na lu nekk si làmb ñu ngi koy encourager mu utaat beneen combat te yàlla may ko si ndam yàlla may ko ci ndam daa euh, ñu daañu dellusiwaat ci moom tey euh, moom la ñuy àndal ci sunu kent layu xam-xam Euh, mbokk yi euh, ginnaaw bi ko bàyyee mu nuyoo dañu ajjuma bi passé ku ne xamoon na ne euh, ki nga xam ne mooy Prince Production amaloon na combat bu rëy diggante Pape Mbaye ak Diène Kairé di ñaari xale espoir yoo xam ne a ah, combat premier grand combat la woon combat de déclassement que ñu dem ba stadium Iba Mar Diop ak ànd ceeg Prince seetaani combat yooyu waaye tête d'affiche bi diggante Pape mbaay la woon ak Diène Kairé sama xarit di sama mbër di sama waay geesu na ba pare ma nga dë ma nga dëju cay tànkam buur tanit noonu buur tan ñoo ngi wiite wiitelu ñoom ñaar rawaan jam na ko ñaar te buur tan bu ko rof ca xaba rawaan bañ rawaan a ko koy sojj rawaan sojj na ko sojjati ko sojjati sojjaat sojjati sojjaat sojjati sojjaat buur tan a ngay wut nu mu génne amul buur loxo rawaan bee ko jaaxal bur ta danga koy rawaan bañ na rawaan féete na ko suuf ndax dina génn ci poqtaan ba bur tan bañ na rawaan taf na ko tël ko andi ko tuur na ko wég na ko andi na trois appuis loxo baa nga ci kaw rawaan dëj na ko bi tar ñi na ko dóor ko ci suuf rawaan dëngoog rawaan dëngoog moo biram ma xam ne ma nga ca TFM ñoo bokk ndey baay ay mbër feeñ na mbër feeñ na nii la ñuy bëree enchaînement bàyyi ko mu xalaat bàyyi ko mu noy Aboy cere ma ngi lay fay. noo def ak TFM. TFM xanaa kontaan si ñoom ak seen liggéey rafet bu ñuy def rek. tey noo daane waa ji. waa ji waaw dañoo daje signature mu ne ma boo déggee sabab naa dóor nga daanu man ma xam li ma xam parce man damaa mbabat daan samay morom xam nga ma la mbaba ah morom ma ñëw combat dama kaa test yoon arbitre sifflé ma jàpp ko ndànk. ñamal ko tuuti jàpp ko daan ko. loo bokk ak Birame bu TFM. dërëm ñoo bokk ndey ak ñoo bokk Birame ay mbër yaay mbër fi. waaw maay mbër mi fii moom mooy mbëru TFM waaw <laughs> jërëjëf papa. yee rawaan mbëru njagamaar la. na ko jànq yi bàyyi xel. bu tëye ci njagamaar yi. jànq yeeg ji dañ ko war bàyyi xel. ay rawaan. arbitre sifflé na. eh bu dóor na ko jël ko gën la waaye yóbbu yem yi du nit may ko temps mu réfléchir dañ sifflé rek mu dox dóor ko ku rek yanu ko buddi ko ba ci kaw dóor suuf Papa Sow jaaxle na may ñu ko temps mu xalaate may ñu ko lenn sifflé rek génne wàcce loxoom mu dox dóor ko ku wàcc jël ko fab ko ba ci kaw dóor ci suuf bu yaa ngoog c'est un ku ñu waxoon ni mën na ko yenu doo ko gëm c'est un athlète il faut être athlétique mbër athlète lay doon kambarante nañu arbitre bi sifflé na génn seen diggante lewaatoo bi yokkuwul dóor nañ ko dóor nañ ko mu daanu daanu na day wàcc bës nañ ko waaw kuy dafa dal dafa dal mu liis mu liis ñu song ko jàpp ko wañ ko mu tëdd pourtant seere na mankaane ba tàyyi de ndax se mankaane beeg lépp buñ buñ ko laalee mu wàcc génnal ñibbi bul tëdd ci géew bi nee na juge pare nañ ni superviseur bi ndax bàyyi nga ma xel mun ko waaw mbër yi pare ngeen sifflé na génn seen diggante pam doy lancé na léegi pour saftal Odinga ee eh! Odinga lee Odinga mi du nit daf ko yónnu rek génn Papa Ndoye rëpp di fekk mu tëgg ko ku Pam Ndoye moytu téere du fekkee coono ma dul Pam Ndoye tëgg na ko Odinga fëgg na ko ko Odinga fëggaat na ko fëgg na ko ba Pam Ndoye tërëf Odinga fëgg na ko Pam Ndoye tërëf Odinga fëggaat na ko Pam Ndoye tërëf Odinga Pam Ndoye Odinga ñaari coup lay mooy danger Pam Ndoye fëgg na ko moom it waaw daje nañu réel tell saftalu rek Pam Doy doon na coppati tànk bi Pam Doy fëgg nañ ko Odinga fëggaat na ko fëggaat na ko Odinga fëggati na ko Pam Doy fayu na Pam Doy fayu na saa yu ko Pam Doy Pam koy coppati coppati na ko bëree fi sës rek li mu doon wut am na ko rëcc na Odinga rëcc na rëcc na waaye rëccagul Pape Ndoye ko koy fëgg Pape Ndoye fëgg na ko fëgg na ko ko Pape fëgg na ko ko Pape Ndoye fëgg na ko Pape Ndoye fëgg na ko Odinga génn na ñaw Odinga ngay xool kanam nga Modou Odinga gi raay kanam gi Odinga raay na kanam nga Odinga ñëw na ñoo ngi leew too ñoom ñaar Odinga ngi ni tekk di ko déglu Pape Ndoye ngi ni tekk Pape Ndoye même na léegi Odinga Odinga sëf na ñu sëf ko ba mu tërëf Odinga daw na jël ko Pape Ndoye bañ na lan la bëgg ak lan la Odinga bëgg ku ne rëjj na sa mu dal nga roccak Pape Ndoye Pape Ndoye Odinga daf ko yërnu léegi mu wàcc di ko tëru Pape Ndoye nee na ko ko coppet galan loxo càmmoñam seen digg la ba tee ca peggu pe bitar ñi waaw sukkar bi na ko daan na ko jëli bu rëy daan na ko jëli bu rëy jëli bu rëy jëli bu rëy jëli bu rëy dox na wuti ko demadun Edouard dox na wuti wuti Eumeu Sène junior Eumeu Sène junior dellu ginnaaw seere na ndombali wàcc na ñoo ngi léewtoo ñoom ñaar Edouard tibb na suuf raxasoo ndax Edouard ci arène bi dina dem am du dem ni mu demee ca mbapat mi ni mu déggee way tànk càmmoñ la Eumeu sen junior jiital Eumeu Eumeu Eumeu Sène xeex na Edouard ja Edouard réeral na ko Eumeu Sène dal na tibb dëbb na ko sol léegi Edouard Edouard koy xañ bopp Eumeu Sène a ngi dox ci kaam Eumeu Sène Edouard tibb na tànk ba laxasu na ci ndigali mboot na mboot na mboot na Edouard bay ko dafa mboot rek Edouard roccee ko mu ñëw quatre appuis il faut être athlétique daf ko dëpp daf ko dëpp madun il faut être athlétique un match seen bi nañ ko travailler presse loo yëg tey mbégte bu rëy lu ko waral Serigne Modou Kara Noreyni Bamba fépp Bamba partout Bamba merci Bamba di sant yàlla bu baax di santaat yàlla di sant waa Sénégal yëpp di leen sant yéen di sant presse bi yëpp communicateur traditionnel yi di sant kii mooy liggéeyal As Diop euh, di gërëm tam ñëpp ñoo xam ne tey jàpp nañ si bés bi ba mu réussir di gërëm maire Médina mooy kan mooy Bamba Fall bopp taalibe la taalibe sëñ Modou Kara la taalibe la nit ku baax la dinañ ko delloo njukkal incha allah. kii mooy As Diop As ñoo ngi lay nuyu. waaw Baba ñu leen di fay. as TFM nee na loo yëg. ah kontaan di wax bisimilah. onze bila bisimilah ina wane leen la jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di kontaan loolu ci bés di sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan loolu ci Cheikh Amadou Karam Mbacké Noreyni ndax gis nañ taxawu bi gis nañ jàppale yëg nañ ñaan yi yeg si na. arbitre bi nee na jën naa seen diggante jeex na. Pambay xob na ko. jën kayre ni tekk jën kayre pambay pambay tànku ni joor la jiital jën kayre tànku ci dayooñ jën kayre gëdd na ko léegi pambay dellu ginnaaw ni tekk dellu si xolaat pambay même na di ko dóor jën kayre dëbb ko jën pambay takk na ko jën kayre nga ko bëgg bot jën pambay tël na ko wiite na ko daan na ko pambay daan na jël bu rëy jël bu rëy jël bu rëy jël bu rëy ma ngay ma ngay nuur di nukki ma ngay nuur di nukki ma ngay nuur di nukki ey nuur na nukki xëpp na ñëpp suuf nee nañ bu ko kenn laal nee nañ bu ko kenn laal nee nañ bu ko kenn laal ma dun daanu fii moo gën dem ba dégg daal yi di daanu andi woon alaaj Cheikh Cerno Ndiaye seen soppe de retour de Bercy ñëw fii ci stade Iba Mar Diop jox leen li fi xew moo tax làmb ji jeex na ñoo koy dàkkante ak yéen ba baneen yoon jaxaaw léegi ñam na ne xam na ne gardu gardu adversaire bi baaxul booy jaxaaw fëgg na ko léegi de fëgg na ko mais booy jaxaaw gardu gardu gauche bi baaxul déedéet da koy dindi booy jaxaaw nga koy fëgg waaw dellu ginnaaw jël ko daane ku waaw dellu ginnaaw ñu sañaxal ko ñu sañaxal la rek ñu sañaxal mbër sañaxal ngañ mbër day yokk bi ko dóoree nan la wàcce père dama ko dama mu jébalu loolu si yow laa ko déggee mu ngi koy ziar si yow laa ko loolu tax mu ko mu wàcc xamoon naa su ma ko dóoree day wàcc xamoon naa danaa ko dóor dama naa ko ziar ma ko ziaree rek mu wàcc. yéen ko déggandoo ñun ak yéen a ci am coup de ku nekk ngay jat di guy gee ngi jat deful na turandoom di def di génn waaye mi ngi taxaw di jat di léemu garga garga résisté garga taxaw na. guy gi xeex naa ak moom jaar nañu kor na ko newoon na ko duma sa morom garga ko dang ma xeeb te koo xeeb mu yab la mu bañ mu bañ war na ko ndomba mu bañ sajj na ko sajj na ko waxoon na ko de sajj na ko bëre bu ko duma sa bëre la bëre may ko temps d'arrêt déedéet enchaînement rek mbër day enchaîné waxoon na ko ko du ma sa morom da nga koy jëfe jëf na ko TFM yëpp ngi lay nuyu maa ngi leen di fay bu baax di remercier seen njiit Youssou Ndour bu baax di koy ñaanal yàlla mu affaire yi gën a yokku daal ay télé télé allahuma amin guy gi gargaa nga ci géew ba di bañ ba léegi noo ko daane waaw lamb la rek moon na maa daan moon naa ko daan dafa waaj mbokki mbokkam ma waaj samay mbokk lamb la na moo demee nii quoi amul la surtout Mbaye Dia de xam naa ni mooy sët mooy secteur Abdourahmane. moo féete nijoor. ndax fala ngay nijaayu mbay ja. ñoom ñaar ñëpp tibb nañ suuf. moom mbay ga njaay ba wàcc na. moo féete nijoor attention door na ko aare. door na ko aare waxoon na ko de. xale bi yaram yi dafa ko dañuy xeex de. mais aare aare aare aare ku ku attention daw na jël ko. riñaan na ko attention xale ba añ na dafa na ko attention añ na ko. Saliou wañ ko Saliou wañ na ko Saliou wañ na ko wañ ko. wañ na ko mu wañ wañ bañ na ngañ Saliou Faye ngañ bañ na Saliou Faye jëm céeri bay jaag Abdourahmane di say maam buddi ko buddi ko door ko ci suuf waxoon na na ko waxoon na ma ko ngañ nii la ma a bëri ngañ ci dafa donn lii ki a donn mbay gay njaay ak a donn mbay jojob ak kan a donn mboor ki a kii moo donn waa ñàgg yëpp kii kenn du moom moo doon ma jom njaay bu kayaar mbër maa mi feeñ na moo doon moo ma jandeer day mbër feeñ na Thiès na ko kenn mënu moo kenn musuma daan Baba Galle kabar na dégool kabar kabarante nañu daw nañ daje waaw Baba Galle daf ne day xeex rek dégol jàppoon nañu mën ko ñoo rojante ñoo rojante eh Baba Galle dëkkam la ne ah, daf euh, koy jaral ne dégol forcé na action ba Bala Galle bañ na waaw mais dégol loolu la doon wut Baba Galle rëcc. lan moo ci am lan moo fay am daan na ko daan na ko Baba oh, Galle daan na ko daan na ko jëli bu rëy làmb ju am solo am ay victoire yu amul lami laami leer nañ loolu c'est le sport le maire a gagné ñeneen yi dañuy fagarwaat donc di féliciter ñi am victoire di encourager ñi nga xam ni dañu am défaite mais di wax waa Thiès ni jot jot jot na ci suñu dëkk di leen indil nuyo président Macky Sall di leen indil encouragement ak engagement président Macky Sall pour liggéey Thiès président Macky Sall engagé wu pour développer notre Sénégal yàlla def ñun ñu dëkk Thiès màgge fi yàlla def ñu nekk ci wetam tey mu jël engagement pour liggéey Thiès. ma am ci mbégte bu rëy rëy ànd ci ak samay xarit plus particulièrement ñi nga xam ni ñoo bokk drapeau bi tey ak ñi nga xam ni ñëwuñu. ñun suñu kàddu mënoon na bañ a jóg ndax euh, le ministre des forces armées muy Augustin Tine su waxee rek ba pare mënoon nañu joxe drapeau yi ñun ñëpp ñibbi parce que waxam dañ ci tàbbal suñu bos ñun ñëpp daal di koy baaxee askan wi mais nag. dañuy wax rek di féliciter ki nga xamante ni mooy Fallou Faye ndax loolu mënuñu ko bañ a def ndax Fallou nag dafa nekk koo xamante ne nii dañu àndoon démb tey doog a ñëw te nit nag bu fekkee ne dañuy wax nit ki kat ba xam am na kóllëre dañ naan ana ay nit démbam te yàlla def na démb ñu àndoon tey aussi ñu continuer ànd ñu ngi félicité Fallou ci initiative bi nga xamante ni jël na ko di wax rek ne làmb bu bu ñu ciy ñëw. souvent nit ñi dañuy wax ne non homme politique yi dañuy yàq xaalis ci làmb loolu amul parce que il faut ñu xam ne ñun du alal ju ñuy jël di ko def ci làmb parce que amuñu ko loolu mooy la réalité. présentation baa ngi drapeau bi ñëw na waaye ma dun buñ la dénkee lañ la denk da ngay fexe ba man koy wasaare le ko ñëpp sunu ministre Augustin Senghor Augustin Tine Senghor c'est mon ami de la fédération Tine c'est mon ministre des forces armées. je vous respecte monsieur le ministre lii nga def yombul ànd ak un encadrement pareil une délégation si forte résistante bu xam ni dañuy wax toujours ni prêt et dévoué ci fii rek lañ ko gisee jóg ñëpp ànd ak yow loolu du lu ndaw ñaari mbër yi tey seen jom tey seen ngor tey ça va rester dans les archives ñun ñoo bëre drapeau Augustin Tine ministre des forces armées coordinateur de la région de Thiès bu per ñu ne ay bis nag mooy bis bu rëy bi booy nootoo ñu ne kan la dajeel ñu ne ki nga xam ne nag mooy Isma Diarra soyez de grands lutteurs soyez des lutteurs du fair play et ñoo ngi leen di ñaan nag que le fii ci stade Maniang Isma Jara. ma. Isma raxasoo na suuf ci bët jël raxasoo waat suuf dox na ci kawam Boy Noto ku ci nekk sa tànku ci amuñ nga jiital ngañ. ndax Isma xam na na def ndànk Boy Noto koy jéem a jumloo koy jéem a jumloo da koy tibbi da koy tibbi da koy tibbi wañ na ko mu bañ. wañ na ko mu bañ wañ na ko mi ngi koy kott mu bañ daan na ko kott maa yees sës kott maa sës kott maa sës waaw ba pare jéggi ko kott yëg la ngañ kott gi yëg ngañ loo xam ci kott yëg ngañ loo xam ci kott yëg ngañ loo xam ci kott yëg ngañ loo xam Eh, jërëjëf mbokk yi ginnaaw bi ñu dellusi siwaatee ci plateau bi ak Bombardier eh, yaakaar naa ne eh, Bombardier gis nga xale yi léegi ni grand combat gaawee ci ñoom. Uh-huh. est-ce que amul danger wala tamit est-ce que du teel a dawal xale yi ci cour des grands te xëy na parfois da ngay xool ne xale bi dafa frêle. waa souvent El Hadj dina dina may chance mbër mais dina handicapé mbër parce que mm-hmm. euh, mbër dafay war a ramper. Mhm. da ngay bëri ay quatrième combat bëri troisième combat bëri deuxième combat bëri combat spécial. Mhm. booy bëri grand combat day fekk nga ñor xomm. Mhm. nga mat sëkk mais tey. Euh, mën na la dimbali nag parce que boo amee sens génn rek mën nga continuer noonu dem. mais bu yàlla defee tey nga am tolof tolof. dootoo nangoo bëri ak ñi nga xam ne ñooy sa génération parce que da wax ni. tey bëri naa grand combat ba pare. donc xale yi daal si ni ma leen gisee ñu mën a bëri lañ nag. mais ñi leen yor di leen encadré. nañ leen bàyyi di leen gunge ñuy bëri ay quatrième troisième ba nga xam ni bu ñuy bëri grand combat. Mhm. day fekk ñu mat set ok mais vraiment xale yi mën a bëri la. voilà euh, di féliciter Pape Mbaye ci taxawaayam euh, gis nga euh, Diène Kairé parce que boo xoolee ci action bi Pape Mbaye da koy yëndu dellu si bi mu koy yëndu da doon xool ndax day statique waaye malheureusement pour Diène Kairé bi Pape mbaay yëngoo dafa waroon déplacé wu. dafa waroon dem ci côté côté côté droite am waaye dafa statique moo tax Pambaay dafa reetaan ci action bi gis nga dafa ree parce que xam na ne bu ñëwaatee da koy jàpp bu ñëwaatee da koy jàpp bu ñëwaatee da koy jàpp moo tax gis nga bi mu ñëwaatee bu mu ko attaqué da ko xaaj ci digg bi la jaar. ci axe bi la jaar ndax Pambaay booy xoolee cëram moo gën a gudd ndax xam ne ne saa yu ceinture booy jën euh, kayre booy keree amatul avantage parce que. cër bi mu am booy jën euh, amu ko bien vrai que jën c'est un fin technicien jéem na lu ne galgal bi sax jéem na ko waaye euh, xale bi da ko ëmbaat sañaxal ko pour gën koo jàppaat kon je pense que bi mu ko peesee mu jóg mu yëlëbu foofu la ko éto nag fa la étau bi resserré parce que bi mu yëlëboo dafa waroon fexe dégagé wook moom ñu taxala ko ci ci yaram moom nga gis ni action bi euh, kon yaakaar naa ne jénit di ko félicité moom it sunu doom la Pape Mbaye di sunu doom kon ñoom ñëpp di sunu doom euh, ñi leen di ñaanal nag vacances su jàmm xëy na déwén ñu defaraat dellu siwaat euh, kon mbokk yi euh, dañuy ñëw samedi génn Dakar tuuti dem ba Ngexoox am fa nag combat boo xam ne bii bu rëy bu fa amoon ak Guèye production waaye di ci félicité nag sunu xarit. Euh, sunu ki nga xam ne kii El Hadj Pape Mbeng le directeur général Fambine sécurité nga xam ne moom la ñu dara jaal combat spécial bi di sunu xarit nga xam ne ne vraiment di xaritu groupe Futur Média euh, ñu demoon nag ba ngeexoox ñu dem ba ngeexoox nag dellu si waat ci plateau bi. jàpp na ci Baye Tam jàpp na oh ah combat bi neex na diggante Tam diggante Idé Baye Tam Baye Tam jàpp na ko Tam mu ngi xëcc Baye plaqué na ko Baye Tam plaqué na ko ah Idé bañ na oh attention ah attention am na lu am nag am na lu am am na lu am sama gars am na lu am arbitre baa wax am ah Idé daan na Baye Tam jël bu Balla Gaye ak Baye Zal Baye Zal mu ngi cokkaas jàpp na ci bopp Balla Gaye Balla Gaye jàpp na dugg Balla Gaye jàpp na Baye Zal jàpp na tànku Balla Gaye Balla Gaye Baye Zal jàpp na tànku Balla Gaye Balla Gaye oh Baye Zal Baye Zal daan na Balla Gaye jël bu set Balla Gaye diggante Balla Gaye ak Baye Zal diggante Balla Gaye ak Baye Zal diggante Balla Gaye ak Baye Zal tey dama ñëw ci lamb ji ñu ñu maak ñi ma àndal fekkee si ko Mbaye Gueye moo organisé lamb ji pare nañu ko ci kàttanu yàlla. gaa yaa ngi leewaatoo ah gaa ne dañoo xaw a ñemente ah mbir yaa di na mbir sekkeen door na ah attention mbir yaa di na mbir yaa di na mbir ah mbir sekkeen dugg na ci tànk yi mbir yaa bin tekkeen dugg na ci tànk miliyaar yi bin tekkeen ah ñu ngi doorante ah combat bi métti na ndeysaan gaa yaa ngi doorante combat bi métti na ci diggante mbin yaadi ak mbin tekkeen mbin yaadi door na ah mbin tekkeen dugg na mbir yaadi mbin tekkeen dugg na mbir yaadi mbin tekkeen dugg na mbir yaadi mbin tekkeen dugg na mbir yaadi mbin tekkeen dugg na mbir yaadi ah mbin yaadi yëkkati na ko mbin tekkeen yëkkati na ko mbin yaadi samp nay loxo mbin yaadi samp nay loxo mbin tekkeen jàpp na ci ginnaaw wër na ko ndomba mbin yaadi aa ah, mbin ceken mbin ceken mbin ceken mbin na wato diggante Fadiga ak Fadiga door na Boule Bala Boule Bala door na ndeysaan ah gaa yaa ngi la wato diggante ak Boule Bala Boule Bala daa mel ni daa bëgg a dem Boule Bala door na Fadiga Boule Bala jàpp na Boule Bala jàpp na Fadiga Boule Bala jàpp na Fadiga jàppante nañu songante nañu Boule Bala jàpp na tànk Fadiga waaw defal na combat bi leeragul arbitre arbitre ah arbitre combat bi leeragul lu wóoragul Fatiga ak combat Fatiga moo daan Bleu Blanc set wicc Fatiga daan na Bleu Blanc set wicc Ousmane Gandigal écurie Grand Yoff mbooloo Ousmane Gandigal ak euh, melu ci bu sànni ci tànk yi roi bu Mbour écurie Grand euh, Gandigal écurie Grand Yoff mbooloo ñu ngi ci digg géew bi ñu ngi liwaatoo ñu ngi liwaatoo ñoom ñaar waaw roi door na roi door na roi door na roi door na roi maîtriser li ngay def bi baaxul door na natt na ko laa ilaaha illallaah takk na ko takk na ko ah làmb ji jeex na takk na ko daan na ko daan na ko daan na ko daan ko daan ko daan na Gandigal Roi daan na Ousmane Gandigal waa kay jërëjëf euh, mbokk yi euh, di féliciter Roi di nekk ci écurie Bombardier euh, ak Ousmane Gandigal Ousmane Gandigal ku ko wax sa xel dem ci Mamba Ba moo ko lancé woon moo ko wane woon kon je pense que euh, ñaari xale lañu euh, Bombardier euh, xale bi roi di sa bokk ci sa gis nga bëri bi mu bëri. waaw maa ngi koy félicité tey rek ñoo yendu man ak moom maa koy félicité bu baax a baax baax Ousmane Gandigal it sama rakk la parce que des fois day nekk salle bi ñuy entraîné ñuy waxtaan tey bu ma sañoon du bëri ak booy xam ñoo nekk si man maa ngi moom it. mais Roi moom dama bëgg a bàyyi gars yi bàyyi ko xel bu baax a baax ba parce que bii mooy troisième sortie am. troisième sortie waaw bii mooy troisième sortie daan Gris bu somon Euh, daan Mouhamed Siis bi nekk euh, Mbour. Mhm. tey mu daanaat Ousmane Gandigal. Mhm. kon war nañ ko bàyyi xel te xale bu tuuti la. toujours xale la. ren lay soog a commencé bëri arène. ok waaw te def na trois sorties am trois victoires. Euh, trois sorties victoires bu ñu dellu ci yow ginnaaw bi nga jógee Bercy nga xam ne taxawaat nga ci beneen palier bi. Mhm. ràmb ji recomposition bi actuellement. bon yaa tey boo xoolee génération deux mille cinq. deux mille six tey ñu ngi buuxanteeg yéen ci kaw. Euh, yow nga jotoon ceeb rek ay xale. Mhm. bëri ceeb tafatin euh, kële euh, Balla Gaye daje ceeb Yékini mhm. presque parce que yéen yéenay point focalu làmb. Mhm. muy Yékini muy Bombardier tey xale yi taxaw ci palier bi lan lay wax ci seen carrière yéen. waaw xam nga dafa am benn xarit bu ma doon toogal. bi saison bi tijjee daaw. ma ne ko làmb ji benn bul la boo xam ni tournée bu gaaw lay tournée ba ma koy wax nag peut-être comprendre ma woon mais dama la wax ni la làmb comme ni nga koy waxee rek. des fois dabante dafay am des fois aussi dama lay suivre lu bëri bëri bëri ngay wax Caritas mhm, peut-être ñi xam dinañ xam mais am na ñoo xam ne xamuñu Caritas Caritas mooy dañuy tànn tey ñeenti mbër ne ren ñii ñoo feeñ mhm. ñu boole leen am am yeneen quatre wala huit yoo xam dañuy nekk seen beneen position di xaar mhm. ñi daanu bu ñu daanoo rek deuxième position bu ñu daanee dañuy dañuy ñëw seen place. dañuy ñëw seen kaw waaw. voilà moo tax ma ne la làmb ji benn bul la woon bu ndaw buy tourné. donc mu ngi nekkoon si entre euh, quatre ba huit mbër. waaw euh, ren yàlla def na jàmm ñii daanu nañ ñii daan. Mm-hmm. donc sélection ngay defaat rek. waaw ñi daanu ak ñi daan ak ñi daanu fe ak ñi daan. ñi daanu fe nga amaat saison bu neex. waaw parce que xam nga moom dugalaat na ma ci Carredas wax na dëgg parce que encore recomposition la. conflit de génération moo amoon mooy ñoom ak seeni i rakk yi bon Carredas bi génn na Tapha Tine génn Balla gay génn Eumeu seen génn Modou Lo mu nga ca looba ñoom nag cas spécial la. parce que tey boo gisee Bombardier fii mu toll tey ci làmb euh, tey wax na leen ko Bercy carrière am nee na mi ngi doog a commencé te bu leen ko waxee it ngeen gëm ko parce que professionnel la professionnel du màgget mën nga doon mag waaye doo màgget ñu bàyyi fàttaliku mag ak màgget du benn c'est un professionnel wax na dëgg xale yi dañuy doog a dugg ci doole te ñoom yàgg nañ téye seen doole kon je pense que euh, Bombardier euh, tey boo may commentaire diggante. Balla Gaye Tapha Tine tey ak combat bii ñu jëm diggante Modou Lo Eumeu par rapport ak ñi nga xam ne yéen ay ténoru làmb waaw xam nga damay dégg souvent ñu koy wax diw mag la diw mag la mais des fois dafa am ñuy teel a bëri mhm. xam nga dafa am ñoom dañuy jekki ba am ay vingt cinq ans ni ñu soog leen a xam ñu soog a bëri arène mhm. donc ñooñu dañuy jàpp ne xale la nga gis ñu am dix set ans dix huit ans mhm. man bi may njëkk a bëree combat d'or dix sept ans la am donc kon sama tur dafa teel a génn mais wax naa ko Bercy nee leen man maa ngi soog a bëri sama génération. sama génération laa soog a parce que boo seetee. man ñi ma daboon bëri ñoom yëpp ñoo mag. muy ñoom Yékini muy ñoom Tyson muy ñoom Moustapha Gueye Ibou Ndafa Mame Ndiambane ñoom ñëpp samay mag lañ. ma fekk leen buuxanteeg ñoom ba am fa place. donc tey sama génération lay soog a bëreel. parce que ñii di bëree ñii ñëpp carré bi ngay wax yëpp. entre vingt huit ans trente ans la ñu. Mm. kon magante wuñ trop. Mm. donc saison bi nag xam naa ni saison prochaine. man maa la dig ni la El Hadj Ngagne saison bu neex ngay gis. Eh? parce que euh, des na benn combat muy Modou Lo Eumeu Sène ñu leen di ñaanal ñu fekke ko jàmm ku si nekk ñëw si ak hmm. yàlla may ndam kenn ki yàlla xañ kenn ki. wala ñu marchandise parce que loolu rek moo am. Hmm. mais ñu ngi di ñaanal daal ñu ñëw ku nekk ak sa ak jàmm zéro violence. kenn ki am ndam kenn ki am defet wala kenn match nul wala parce que daam loolu moo si am. waaw bu jàllee nag. Euh, beneen sélection moo fay am. Mhm. bu garaaw bu doy waar waaw man en tout maa ngi si côté bi di xaar. yow yaa ngi taxaw. xam naa ne am na yeneen mbër yu taxaw di xaar. Mm. pour combat boobu jàll pour gars yi defaat beneen Caradas comme ni nga koy waxee. Euh, beneen Caradas euh, Bombardier la nekkal le roi de Bercy nga xam ne première édition Bercy moo ko jël mbokk yi ci noonu laay waxtaan ak moom ci li nga xam ne moo xew ci làmb ji dama gis mbër yi léegi te ñuy toog naan dootuma bëreeg diw. Mhm. loolu dina avancé loo làmb ji. non non non non day yàq làmb man daal comme ni ma koy waxee làmb métier la man day du ma du ma gaaw a wax mais tey bu ku nekk bu nekk am nga si droit aussi. te du ma bëree ak ak ku la neex. peut-être raison yi yaa xam lu tax. mais defe naa day freiné làmb. day freiné làmb day freiné làmb aussi day wàññi adversaire. dama ko njëkk a dégg ci Yaxya Jóob Yékini. mu ne Bombardier su ma ko bëree moom bii bu ma ko daanee dootuma bëree moom dégguma sa tontu boo bokk léegi loolu da nga ci ànd mbala loo koy tontu tey. non xam nga mooy mooy li ma wax ku nekk am nga choix ne kii dootuma bëri ak moom. Hmm. mais man ku ma xam depuis boobu ba léegi ku ma dégg may wax kenn laa lay wax du ma bëreete ak moom. mooy muy Lac de Guiers numéro 2. numéro 2 waaw waaw waaw. ku yàgg dégg sama wax loolu laay wax. Hmm. mais képp ku xool mbar aussi ba ni dootuma bëri ak moom yaa xam ni tax ngay dootu. dootu mais yow est-ce que dynamique boobu Yakhya Diop ne est-ce que yaa ngi ci. non man fi mu ne nii euh, mbëri massif adversaire Hmm? ah match yëpp adversaire parce que sama équipe Mbour la nekk. Yékini sa adversaire la. waaw nee na dootul bëri ak man. kon man est-ce que yow yaa ngi kon man ma wax ni dinaa bëri ak moom moom mooy dootul bëri ak man donc kon courant lañ def si diggante boobu. yow courant bi da nga ci ànd. waaw moom na dootul bëri leer. waaw moom moo ni dootul ma bëri ak bombardier. waaw mais bombardier est-ce que. daf donc tey tey mooy nee na dootul bëri ak man man dootuma wax ni damay bëri moom comme nee dootul bëri ak man. waaye ku ku ko mais tey. waaw actuellement. lamb ji maa fa ëpp adversaire. ba trop man écurie Mbour laa nekk. waaw écurie yi nekk Dakar yëpp laay bëri. yow ku ne dakaar da ngay bëri moom. écurie Dakar yëpp laay bëri. léegi dama bëgg a seet ndax yow dynamique gu Yékini boobu da ci ci kii mbala moom la moom la concerné mbala yow concerné wu waa xam nga tey ci toog ni dootuma bëri ak nit. waaw. kooku moom moo xam li tax mu ne dootuma bëri ak moom. mais yow ku la ko joxaatoon. nga jël ko mais tey tey yow ku ko démarché woon nga wax. xam loolu actuellement nekkul nekkul enjeu moment nekk nii. ndax lan parce que loo xam ne lu nekk si ginnaaw la. Hmm. nee na dootul bëri ak man nit ñi hmm. fàtte nañu ko. Hmm. nekkatul combat bu nit ñi di wax. mais daal man li nekk sama kanam fu mu ne moom laay wax. li na sa kanam mooy tey bëri naa adversaire si lamb ji maa yëpp adversaire man adversaire yi mënu leen xam ndax yaa ma naan diw la maanaam ñi si ñi ngay wax ténor yëpp carré d'as bépp lay bëreel man Modou Lo. ñëpp laay bëre. Eumeu Sène. dañuy bëre. Balla Gaye. dañuy bëre. Euh, ku desaat Gris Bordeaux. dañuy bëre. ku desaat ci gars yi. gars yi bëriwuñ de sa gars yi nag dañoo kon xam nga ni ñëpp laay bëreel. Abdou Diouf ñëpp laay bëreel. Abdou Diouf dañuy bëre. ah kon de yaa fépp adversaire. maa fépp adversaire si làmb ji. yow daal yaay yow daal amoo sens interdit. seul contre tous la seul contre tous. waaw ba maam góor gi nekkee woon. waaw. Euh, mbokk yi xam nga boo gisee ma ñëw bombar Bombardier ci xale yooyu li ñu commencé di wax léegi Mbaye Guèye Robert bëri nañ plus de sept fois Double Less ñaata yoon la bëree ak ak ak ñoom Mam Gorgui ak ñoom Papa Kane ñaata yoon la bëree ak ñoom Birahim yooyu euh, même bu ko mbër euh, waruñu ko déclarer parce que mooy tuutal sa adversaire diw dootuma bëreek moom ci ko jot a bëreel daan ko daanaat ko yu mel noonu dama ne day tuutal adversaire baaxul même boo koy def mën nga ko bañ a déclarer xëy na bu ñu la ko doxee nga ne leen seet leen ma keneen moo gën a rafet diw du ma bëreeg moom parce que day mel ni da ko sous-estimé c'est pas bon kooku day freiné lamb ñoom Mbaye Guèye Robert kenn xamul ñaata la ñu bëre te yàqul dara seen carrière kon mbokk yi. Euh, Bombardier laa togal ba léegi. ñi ngi jëm samedi prochain bii di ñëw. nga waroon ko def samedi bii yàlla dogal ñu ngi lay jaale wala sa sœur boobu. waaw jërëjëf nga xam moo génn àdduna waaw. jërëjëf euh, caravane bi euh, bëggoon nañ ko def samedi samedi bii passé. mais dañ amoon décès muy sama benn sœur bu nekk Saint-Louis maa ngi mu nekkoon saint yi maa ngi euh, koy jaale famille Sàlleen bépp di ko jaale Ayda Mbay di sama jigéen ah. maa ngi leen koy jaale famille leen famille Dia ñëpp maa ngi leen koy jaale euh, di leen wax ni mënuñu woon a boole naqar ak ak bànneex hmm. moo taxoon defuñu ko samedi bi passé mais jàpp nañ ko samedi bii di ñëw si kattanu yàlla caravane bi nag vraiment dafa bari ñoo xam dañ si jàpp monsieur le maire dem nañ seeti ko nee nañ ko podium bi nga xam ne mooy def si buntu maire bi dañ bëgg nga jël ko en charge jox xale yi moyen de déplacement utal leen ay t-shirt ñu ñëw ànd ak ñun ñu génn feete parce que lañuy def tuutiwul. Mhm. lu rëy la ñuy def parce que dañ si andoon ak TFM. Mhm. ànd ak ñoom préparation yi. ba si combat bi pendant avant et après. donc kon dañ ko war a toppaat tey ba biir Mbour. Eh, may wax ne ñu ngi woo ñëpp képp kuy soppee képp kuy am di jàmm mhm. samedi. à partir de 17h. Mhm. dañ bëgg a def benn caravane commencé ko Malicounda démb seeti naa si soxo mhm. muy président comité Malicounda. Mhm. vraiment wax na ñu ne dina jàpp bu baax a baax si caravane bi. et ñu ngi woo ñëpp soppee am di jàmm ñu ñëw samedi génn après midi bi mbuur gépp génn parce que fête la. ñu ànd ak euh, population bi feete ko ku nekk xam na ni TFM mooy tele bi xew si jamono. ñu may leen buntu mairie comme ni ñu ko defee woon avant combat bi. parce que indi nañ fa centre bi présenté ko. ñu dig leen ni dinañ dem jëli ko indi laata leen ko fi ñu feete ko kon buntu mairie yi lañ bëgg def feet bi may leen comme ni ñu ko defee woon rek mbuur na door ba hmm. ñu génn bi yoon sécurité bi doy ñu béggee ba bët seen jot. ñu béggee ba bët seen jot mbokk yi dañuy dem service. kay sawar euh, hmm. red light bi euh, ñi bëggul suukar ak ñi jabet mën nañ ko utiliser waaye boo bëggee mu woyof trop. te tamit ñi amul su ñi bëggul sukar mën nañ ko naan O2 euh, bi moom ngay jël ci qualité best waaye euh, mbokk yi ñi ngi ànd ak tamit euh, dollima dollima càkkri nga xam ne wax naa leen ko ah ñoom fiñ ko préparé baax na ndax ñi ngi waajal koor gi aussi muy dolli ma càkkri bi nga xam ne moom la ñu àndal ci seen pénc émission Rofo. dañuy delluwaat Dakar dem stadium Iba Mar Diop ak Ndeye Ndiaye Tyson sunu jigéen. Euh, ci li nga xam ne at mu jot mu def ko hommage bi nga xam ne da koy delloo sunu waay jur yi ku mel ne El Hadj nga xam ne làmb bu tolloo fii tey moom la ak kan le grand serigne de Dakar dem si yàlla El Hadj Bassirou Diagne Marème grand serigne ja Dakar mi nga xam ne euh, moom it di ko fàttaliku ci bés bi nga xam ne euh, ki nga xam ne mooy Nday tey Nday Njaay Tyson fàttali na ko ci sunu way dawlu yooyu ak ñi nga xam ne daal na leen ko defal ku mel ni ñoom Mbaye Diop ku mel ni ñoom Vieux Sène mel ni da Diop bu may bu Baye Mass Kokki Grand Serigne euh, ñoom ñëpp ñu leen di fàttaliku ci bés yi mbokk yi dañuy dem seetaani ama ndaw ak ki nga xam ne mooy Lassana dellu siwaat ci plateau bi tey moo jox lamb jër ba mu mat ku sa lam ndax jëf ba jë dem ku ñu ngem nga daan ki fii man ku ñu ngem nga daan ki fii man mayu ju foo marjam elal gàcce nga la ma ñooñu ca Mbour yegg na yegg na yegg na yegg na ba ca ren jumaa ja kulli fa waa fonte sa ko jëmm ji ziyaara xaadim penku ba sowu jow li jolle doomu Aliou Mamadou Ngoné bala nga xam ne Mamadou Ngoné lamb di ngon ba ñëpp déglu jib sabar jib neeri jib jënk ji taccu jag di way boobu ngay xam ne jaadu na ndax lii ma def ci mim réew bari na maa ko def maa ko wax jaadu na weddi kay xanaa gis bokku ci mere gi du ko te di gën a mere ko te jàpp jëm loo bañ bañ yàlla daw tolluwaay déglu lan ma nekkal làmb dem déglu lan ma nekkal làmb dem papa jom ca Pikine mbër la woon papa kon ca Caaroy war la woon Mafal Sey sa waalo mbër la woon Aline sa waalo mbër la woon xelam demoon may ndel bu nga dem yàlla jëm yam yaran ci mbëram Aline Sey numéro 2 lañ koy jox jot na jam jotu ca wóoru ma foo dee ñëw bàyyi ko Casamance bi fi ma noonu lañ bëgg a dem gor am bi takkusaan la dëggal lam mi fas gàcce ngalaama yéen waa Janjab léegi yof ñàkku ñu woon di mbër léegi yof ñàkku ñu woon mbër masa masa andi na léegi ci jamono jooju ndeysaan saan ah, Doudou sànni na léegi benn Sallou ah, da koy dóor mu daanu li nu muy def non nekk da am garde bu koy dóor da ngay xeex ñoom ñaar. <laughs> Pulo mi ngi nekk Lamsar Xaasim nekk bàyyi ci xel attention Xassima ngay xeex Xassima ngay xeex Xassima ngay xeex Xassim ak Pulo Pulo Pulo Xassim Pulo bi jàppul baxal na ko eh attention war na ko ndombo Pulo war na ko ndombo Pulo war na ko ndombo ça daan na Bulo Lamsaar daan na Xaasim jël amul benn werante ngi saan dem na gis nga ko ndeysaan aaway ah aaway ah présenté wul noo tudd Michael Fora waa mais feu rouge la ko Assane Ndiaye nan ngay waajale bis boobu non ñu ngi koy waajal ak mobilisation bu baax a baax di woo ñëpp di woo waa Fora di woo samay xarit di woo sama am di jàmm di woo buusa yi di woo bépp jaay ko du yàqu bu nekk ci kaw Sénégal. dund ci Seydina Mohamed sangu sang yi sant suñu ñaari waajur lamb bu mu mës a seetaan ak lamb bu mu mës a organisé lamb bi may def chaque année moo la ko dàqal ndax lamb bi dama koy jagleel ñi nga xam ne dama fee nekkoon woon ak ñoom ba yàlla jël leen may def saa yu may tëj lamb di leen ko tëjee loolu rek ma neex si lamb ma leen di wàcceel ay kaamil te wàcce kaamil bi Sénégal teew ku nekk fa toog sax da nga toog leen fekk bu ma sa seetaan rek ak bu ma sa organiser rek làmb tey bi ak bu mel ni tey bi rek moo ma ko dàqal ndax damay fàttali ku ñi nga xam ne maa ngi wax fi nekkoon jëmb Abdou Niassa nekk écurie Lamsar maa la kajoon nekk écurie bu Balla Gaye Abdou Niassa ah Abdou Niassa tànk bi xeex bi eh, jël na tànk ba bañ na mën na xale yi tey jii li ñu jóg tey tey xeex bu rëy rek lañ jóg tey tey ci bisu Ndeye Ndiaye tey seen bi na ko yàlla la la da ko yanu laa ilaaha illallaah maalaw kajoor dafa yanu Abdou Niass ba ca kaw dóor ci yanu ba ca kaw dóor ci suuf ah arbitre booy xel koom dafa mel ne moo xaw ëpp yaram tuuti Gourdin boy xel ah dem na a ah, songu ma yeggul de songu ma yeggul de booy xel kom da koo bloqué de Gourdin booy xel kom Gourdin Gourdin nga ci ginnaaw Gourdin am na ngemb Gourdin am na ngemb Gourdin ak xel kom Gourdin nar ndaama la. Gourdin Boy Khelcom dafa téye loxo ndijoor bi bu la ko loxo càmmoñ bi attention Gourdin laay laay la am na lu xew wuu Gourdin daan na ko quatre appui quatre appui daan na daan na Boy Khelcom bu jàmm gën si gàmbaaw par quatre appui général bu Kër Massa Mbolo ak Frikis Mendy bu Diamaguène Sicap Mbao ñoo war a daje ñooy euh, général moo féete général bu Falaye seen euh, càmmoñ ngemboo ngembul vert li moo féete seen ndijoor ngemboo ngembul noir blanc yi ah, oh, daw na jël ko général bañ mbokki bañ na Frikis général général Frikis ñu ngi troisième pied bi Filix bañ na général bañ na. jóg nañu. lay lay la la. ah oh, oh, bërëb bi rëy na. général Filix. combat bi métti na. waaw combat bi métti na. général la nga dugal loxoom ci jàmbali. Filix Mendy Filix a ngi door général a ngi door ñoom ñaar di xeex. ñoom ñaar ay général. war na ko. général oh, oh. général way way way way. Oh. way way général daan na ko. général général daan na ko général daan na ko. ko mu mbot ko dafa war na ko. arbitre sifflé na. ndeysaan ndeysaan ku El Hadj Basirou Diagne grand serigne de Dakar El Hadj Ahmed Diène El Alaaji Yéri Jaxate Tyson Junior a ah, daw na jël na ko Ndaw jël na ko Ama laase na rasu na ay Aysa Ndiaye di amatrice Arma Ndiaye nekkoon CNG Alaaji Mbasa Assou Sow Mazor Mbeng ndeysaan amateur Jacques Diène As Mbeng Alaaji As Mbeng mbee seen Mbay Diop ak Daouda Diop ndeysaan ñooñu la Ndey Ndiaye doon fa di fàttaliku ak ñeneen waaw wàcce na leen kaamil ci suba ñaan yooyu yàlla ko yàlla nangu. jàppante nañu ñoom ñaar. jàppante nañu. oh. Ah. Ama Ndaw laasana combat bi ah, ah ah mi ngi koy teq bañ na mi ngi koy teq bañ na mi ngi koy teq bañ na. ah oui Ama Ndaw daan na. Ama Ndaw na ko doole. Ama Ndaw na laasana. doole dañoo mbapat rek. da koo gën a gone. doole doole ëpp ko doole. ndeysaan Ama laasa naa ngi noonu. oh daan na ko. doole la ko. jël bu rëy. da ko ëpp doole. jërëjëf mbokk yi ginnaaw bi ñu gërëmee Ndeye Ndiaye Tyson ci njukkal boobu mu mu njukkal sunu ay waajur euh, di ko gërëm di ko ci sant bu baax a baax a baax mbokk yi ngeen fàttaliku nag 72 euh, heures Fass Mbao 72 heures Fass Mbao. Euh, yi nga xam ne euh, le 4 le cinq juillet lay am ak Mbaye Guèye di wax rendez-vous bi bu leen ko fàtte ku ne xam ne ne Balla gay fa la lu ko ko ko xale yu bari fa la ñu lu ko ko champion yu bëri daañu ci ñëw ak Mbaye Guèye ci 72 heures euh, Fass Sika Fass Mbao mbokk yi ak Bombardier la ñu tëjee champion defe naa ñu ngi woon ci biir lancé lamb ji xam naa ne sunu waxtaan foog ñu defaraat ko beneen yoon parce que li ñu ci bëgg a wax dafa bëri Bombardier dafa am dossier yu yàgg. ak dossiers yu bees yi da ngay song dossiers yu bees yi wala da ngay da da ngay continuer parce que dossiers yu yàgg yi commencé nga ko dépérer mhm. bu ba bu baa booy féetee la bote ban dossier la dese. waaw ngañ dama la dama la benn affaire. Euh, yaa ngi doon wax sànq si ñu doon fàttaliku. Hmm. ñu ngi fàttaliku bu baax euh, Yéri Jaxate. Hmm, hmm, Baye Yéri waaw ci la bokkoon Baye Yéri ci la si bokk ñu ànd si làmb. si durant sama carrière yëpp. Euh, maa ngi nuyu waa këram yëpp aussi. mais li nga wax dëgg la. actuellement nii. ci dossier yu yàgg dama nekk si dossier yu yàgg. Ah, ah bon. lañ koy tuddee parce que toujours mu ngi si mu ngi si waar yi eh, di leen wax di kontaan nañ trop tey eh, seex ak yow waxtaan. Mm. di nuyu Sénégal yëpp di leen sant di gërëm di jox ñëpp rendez-vous. la mm. le 22 si caravane bi. Mm. mbuur gépp génn ñu feete li si des mooy maa ngi invité mbër yi nga xam ñoo demoon Bercy yëpp. Mm-hmm. ku si nekk waxoon naa ne la samedi bii passé la. Mm-hmm. mais ku si nekk woo naa ne la dama am décès dañ ko renvoyé. Mm-hmm. kon ku jot message bi bu ma la owul téléphone na xam ni. xanaa Baboy invité baa ngi noonu. Baboy mooy sama invité d'honneur bëgg naa mu ñëw Mbour. parce que monsieur le maire neen daf ko bëgg a teral. décoré man nag xaw ma lu mu koy terale waaw mais mooy doon sama invité d'honneur bëgg naa mu ñëw ànd ak man si caravane bi. Mhm. Mbour yëpp bu ñëwee ngeen teeru ko comme doomu dëkk bi. Mhm. tàcc ko sargal ko parce que nekk ñooy adversaire mhm. ay nekk ñoo ay ennemi adversaire rek la ñu woon. dañ ko teeru sagal ko ba mu amaat courage am beneen combat yàlla may ko si ndam. Eh, jërëjëf mbokk yi eh, Bombardier la ñu nekkaloon fii ci résidence Lat Dior bu cees eh, doon ànd ak moom ci seen magazine Rofo dañuy dem ci open press bi nga xam ne nag Modou def na ko ci altine ji di waajal combat ak Eumeu Sène. ku gis ne nen nee loo ndaam si ree Modou Lo maa leen nuyu yéen journaliste yëpp ñu fi teew balaa mu wax dara di nuyu tamit supporters yi nekk fi yëpp parce que xam nga lii dafa neex te xam naa namoon nañ ma ko amee maa leen raw xam nga fajar lañ doon entraîné heure yu ne xam nga xam naa na namoon nañ ma xamoon moo tax tey ñu ñëw def ko fii sumu suma koñ bi nga ñëwee saafonte ak supporters yi dañu ni yaanu ko tàmbal ndam la ñu bëgg ñoom mel na ni ndam rek la ñuy xaar ci yow loolu est-ce que du yokk pression ci Modou Lo waa waaw puisque wax lañ dëgg loolu lañ leen tàmmal mais lépp ñoom la rek parce que xam nga ñoo nekk suma ginnaaw ñoom dooleel moom lu may def rek xalaat leen ci waaw def ci jom ful lépp rek lu mu mën waaw di leen wax rek ñu yokku ñaan yi parce que lépp ñoom la daal yokku ñaan le 30 yàlla may ñu dam incha allah. li ngeen leen tàmmal mooy xarañ ba ñëpp tuddale xarañ dox ci kaw adversaire xeex ak moom bu daan ko jotee nga daan ko gars yi dafa mel ni dañoo lamm loolu ci Modou ndax le 30 mën nañu xalaat gis Modou boobu nga xam ne mooy attaque di dóor di jàpp di daan. incha allah le 30 dañuy gis loolu ci kàttanu yàlla. lu ñuy gis. attaqué bëri daan ñibbisi incha allah. ci kàttanu yàlla confiance boobu ci lan la ko Modou teg liggéey ba sentir boppam wala boog da koy wax pour dalal xelu ay euh, supporters ci liggéey rek ak gëm-gëm parce que man ku may lekk avance am rek damay def suma xel gii damay dem daan ko ñibbi si waat waaw gëm-gëm laa ko teg ak liggéey. ay ñu bëri dañu wax ne tey euh, adversaire bi moom la ñu jox favori ci sa kanam presque pour la première fois Modou di bëre nekk position challenger ñëpp di wax ni adversaire bi mooy favori ci kawam loolu lu muy def ci yow. non loolu tàmm naa ko man boo boo seetloo man li may nekk favori li ñu may def favori kiiwul de sa raaw dañ naan mooy loolu. waaye nañ yàlla yokk sutura rek incha allah. mbokk yi jërëjëf euh, ginnaaw euh, bi ngeen seetaanee Modou Lo open press bi nga xam ne. Euh, bu amat seen aussi dana ñëw ci yeneen suñu yeneen édition mbokk téléspectateurs yi di leen tàggu nag leen bàyyi ak Ndiaye Production Ndiaye production euh, ci diggante nag ki nga xam ne mooy Tafa Boy Bambara ak ki nga xam ne mooy Boy Bawol euh, di drapeau honorable député Khadim Thioune ci jàkkaarloo bi nga xam ne am nañ ko mbokku téléspectateurs yi foofu lañ leen di tàggoo nag di leen ñaanal yàlla mii borom jàmm doolu ñu jàmm mi borom sutura doolu ñu sutura mi borom xéewal doolu ñu xéewal jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum sama mbokk yi maa ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam. di am mbégte tey jii trop pour dajanteeg yéen fii ci résidence la joor bi nga xam ni sama xarit muy kenn ci man moom mooy directeur général bi ñu koy wax monsieur Makhtar Diouf. monsieur Alioune Sarr maa ngi lay remercier waat parce que làmb ji lépp lu la ci war yaag sa staff yéen a ngi koy dox suba ak ngoon pour que làmb ji vraiment mën a dem ci kanam sa conseil yi ma boole woon ñi ngi nii. incha allah sa représentant bu jëlee parole dina leen lim maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di wax ni kii nga xam ni moom mooy bàyyi Jibi Fall mu dëkk mu nekk footballeur professionnel aussi te dëkk ci quartier Jaxaaw maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax di gërëm El jiili mbay ca libre Libreville au Gabon mu nekk PDG de société di koo xam ni suma xarit la mu defal ma teraanga yu am solo bi ma demee Gabon di gërëm ki nga xam ni moom mooy Maodo Malick Mbaye muy di DG Anamo di koo xam ne aussi di suma xarit di doomu Thiès moom it wante nag la rassembleur muy kenn ci man di El Hadj Aline Diouf commissaire aux enquêtes économiques moom daf may jàppale ci làmb ji ba mu mat sëkk vraiment moom it maa ngi koy gërëm di ko sant le receveur de domaines de Thiès monsieur Babacar Pascal Ndion si di jaxate mi ngi lay remercier bu baax a baax ci li nga xam ni aussi yaa ngi koy jàppale dëkk bi mais surtout aussi di la féliciter tamit ci résultat yi nga def ci sa liggéey bi nga xam ni moom mooy ci wàllu domaine ak impôt. maa ngi gërëm di sant bu baax moom Mamadou Dieng adjoint au maire di koo xam ni kuy jàpp ci làmb cees ji la. di remercier ki nga xam ni moom mooy Pape Iba Ndaw maa ngi lay gërëm di la sant tamit ci li nga jàpp ci làmb ji di wax ni nag le lutteur Bombardier muy champion boo xam ni def na ay preuve am bërki dem rek à Paris. maa ngi koy félicité ci ñëw bii nga xam ne tey ñëw na ko ci résidence la Dior ñëw daje ji fii ak tey jii ak ñun muy doomu Thiès ma koy gërëm di ko sant tamit ci présence am fii di ko wax ni d'ailleurs bis boobu di le 22 bu paree caravane am à Mbour Sidi Diakhaté tamit invité na ko Thiès moom ak ki nga xam ni moom mooy doomu ndeyam di kenn ci man moom it ba tey ñu koy wax Balla Bèye numéro 2 parce que Balla Balla Balla moom la. Bombardier invité à Mbour damaa bëgg suñu jógee Mbour ci seen caravane ñoom ñaan ñëpp ñu ñëw nag fekk si Sa Thiès fii ci Thiès pourquoi ñu ni dañuy décorer Sa Thiès parce que au Sénégal y a 14 régions 14 régions yëpp Sa jël boppam ni Thiès la koy tuddee kon yaakaar naa ni Sa Thiès nag waa région de Thiès ñoo jóg tey jii nag ni ku nekk dina jël li mu am nag pour jagleen la ko sargale ko bis boobu muy le 22 juin ci drapeau bi nga xam ne mooy drapeau Alioune Sarr parce que waa Thiès kat. dañoo bëgg boo leen lebalee ker ñu fay la guddi daaw invité woon nañ fi sa mag Balla Gaye bi nga xamee ni jël na titre roi des arènes yàlla def aussi ren aussi mu réédité waat exploit boobu mu ñu ñu invité def ko invité de marque bis boobu mu war laa gunge ci bis boobu pour moom it nekk invité de marque ak Thiès parce que yaakaar naa ni moom it xam na ni Thiès am na fi ay soppe yu bari kii nga xam ni moom mooy suma xarit di suma mag di nit ku baax El Hadj Abdou Aziz Mbaye bu TFM ci gàmm gi mu defal ñu teraanga bu mat sëkk man Sidi Jaxate ak samay xarit ak samay mbokk ak samay dëkkandoo ñu dal këram ba fajar ma koy gërëm di ko sant keroog maa ñoom Fatou Géwél ñoo fa nekkandoo may gërëm ay soxnaam parce que teraanga ji ñu defal Tiwaawan keroog sama xol sedd na ci trop moo tax ma ne ko El dañoo bëgg nag bis boobu nga ñëw Cees nag Sidi Jaxate nag ci kanamu ay nitam ñoom it ak ay mbokkam ak ay xaritam ñu jël li ñu am décoré waat la ko parce que nit ku baax nga doomu Cees nga te ku la décoré décoré na Futurs Médias ku la décoré décoré na communicateur traditionnel yi nekk à travers le Sénégal loolu moo waral may wax ni bis boobu daal yaakaar naa ni bisu communicateur yi nekk biir Sénégal yépp la may wax ni kii nga xam ni mooy Malick Gakou di le serviteur de la banlieue comme ni ñu koy waxee l'ami de la jeunesse Malick Gakou ñi ngi lay def nañu de dañ la ñëw naa ba foofu indi la lettre d'invitation ñi ngi lay xamal ni invité de marque nga parce que xam nañu sa diggante le ministre Alioune Sarr xam sa diggante ki nga xam ni mooy président Moustapha Niass moo waral bis boobu kat waa Thiès gépp ngi lay xaar surtout que rawatina nag sa trondoo di Malick Gakou mii nga xam ni moom moo la tudde boppam di bëri nag grand combat bi kon nag ñu lay xamal ni daal yaakaar naa ni képp ko ak ak ak bëru mbay jonn surtout mbay jonn mi nga xam ni nag moom ku nekk xam na ni moom mooy PCR bu Ngoundiane di kenn ci man ba pare di jàppale nag vraiment jeunesse su euh, Ngoundiane bi di jàppale nag waa dëkk bu baax ah mbay di nit ku baax kon nag yaakaar naa ni kii nga xam ni tey jii moom mooy Sa Thiès bu ñu ko waree décorer Thiès invite def invité de marque son grand frère Balla Gaye ah yaakaar naa ni boo nee Malick Gakou mi président d'honneur ci ci ci écurie boobu ba pare di koo xam ne kenn la ci waa Géejawaay kenn la ci waa Sénégal parce que moom ay mbirum dimension la boo xam ne dimension nationale et internationale kon nag Malick Gakou ñu ngi lay xaar mais la ministre maa ngi lay gërëmaat di la sant monsieur le ministre Alioune Sarr di la wax ni vraiment Sidi Diakhaté kontaan na trop. ci turu ministre Alioune Sarr ngi yëkkati kàddu yu nuyoo. kàddooy ngërëm kàddu kàddooy oote waaye tam benn message boo xam ni mu ngi koy jox jeunesse Sénégal mais plus particulièrement jeunesse bi nga xam ne mu ngi yëngatu ci li nga xam ne mooy làmb ji. di nuyu le président Macky Sall son excellence mi nga xam ne tey bu ñuy yëkkati kàddu naan ci turu ministre bi yàlla ak moom ak le président Moustapha Niass ñoo tax ndax moom bu xoolee Alioune Sarr. mu ne commerce bii moom moo ko ci doy ñi nga xam ni ñooy waa AFP nga xam ni le président Moustapha Niass loolu doy ko ñu nekkoon kon kii kat wóolu nañ ko ngir mu dimbale sénégalais yi ngir mu dimbale la président Macky Sall mu yëggale yéeneem bi mu am ci askanu Sénégal loolu lu rëy la ci ñun kon ñu ngi koy gërëm le président Macky Sall ak le premier ministre ñi nga xam ni ay wëllërey ministre Alioune Sarr lañ. ndax mën naa ni du mission gouvernementale rek moo leen boole waaye ay wóllëreñ yu yàgg kon bu demee ba lii am foog ñu yëkkati kàddu yu ngërëm jëmale ko ci moom